jërë ngeen jëfati ci ànd beeg RFM euh, daan coronavirus ak RFM tey jii ñu ngi waxtaanee ak mbokki daayiratul mustaasidiin wal mustaasidaat yi bu nu ca jógee incha allah daañu dem ba Matam ak sama xarit sama soppe Ali Bandel ñoo laata loolee ñu dalal sër sëriñ Maxari Mbay Maxari Mbay bu daayiratul mustaasidiin wal mustaasidaat yi ñu ziar bu baax euh, kilifa gi sëriñ Moustapha Sy euh, di ko ñaanal jàmm sëñ Maxari maa ngi lay ziar bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah El Hadj Assane maa ngi lay fay maa ngi nuyu auditeur eh, RFM yëpp. jërëjëf di nuyu itam eh, kilifa gi Youssou Ndour di ko ndokkeel ci weer wi di ko gërëm ci taxawaay bi nga xam ni mi ngi koy def ci gàmmu champ de course mhm. depuis bi ko kilifa gu màgge radiallahu taala anu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy di def mhm. vraiment di ñu jàppale ci sonorisation bi di yónnee équipe télévision bi rajo bi GFM ñuy ñëw di couvrir affaire bi ci façon bu mu gën a rafetee. itam namu ñu ak euh, Ndiaga Ndour. Mhm. maa ngi ci coordonné ak Ndiaga ndax moom woon boo ma Ndiaga mel gis nga mm. itam def am solo. allah jërëjëf Mbaye jërëjëf balaa ñuy sori ci waxtaan bi ñu waxtaan ci daayira bi euh, ak ak euh, du ñàkk xëy as tuut ci gàttal xam naa dëgg la mm. waaw niñ ko waxee léegi eh, daayira baa ngi waajal eh, gàmmu gi mm-hmm. incha allahu eh, boo demee champ de course yéen yéen nga fa woon ci mbale ma mm. ñëw couvrir ko jàllale ko mm. vraiment ba démb rek bi ñu fiy jógee di ñëw ni fekk nañu waa commission comité d'organisation bi ña ca mm-hmm. macha allah bâche yi yokk nañ ko chaise yi yokk nañ ko sur le plan organisationnel donc mesure yëpp jël nañ ko mais oustaz euh, comme ni nga ko waxee ren gi nek dafa nek gàmm gu particulier ndax contexte de crise sanitaire bu mu dajeel mhm. lolou itam li ciy lepp lépp macha allah mhm. ñoo ngi koy jël ah, justement lolou lañuy gëna a xaar ci yeen ndax contexte bi sax euh, moko waral euh, ci walu parce que mbolo mom dina fa teew kon euh, il faut que ñu daal di jël euh, yoyé mesure ci accompagnement bi sentir ngeen ci kilifa yi ci wet gi le gouvernement je veux dire. wa vraiment machallah ci niveau ministère de la santé ñom itam am na séance de travail bo xamni ñi nga xamni ni ñoo yor wàllu organisation bi ak walu euh, équipe médicale ou d'aérobie, de def nañu séance de travail nous avons ñi vraiment comme type rôle de service public vraiment l'intimité ci man ñi mhm. niveau autorité aussi euh, le préfet de Tivawan, le gouverneur de la région de Thiès nous avons mis lu ñu def ñoo ngi koy man mhm. pour que daal gàmm gi ñu organiser ko ci façon bu mu gën a rafetee ci ak aussi pèlerins yi nga xam ni ñoo ñëw mhm. dañu am euh, benn problème ci niveau gendarmerie ci niveau service d'hygiène euh, ci niveau police sécurité bi yëpp daal matuwaay yëpp ñu ngi koy jël sécurité routière bi ak yëpp euh, vraiment kilifa yi ngi koy def lu am solo mhm. ci seen jiitu kilifa muy le ministre de l' intérieur. na jiitu paaka ci mbaram euh, waxtaanee discours bi nu wara mun a am ren ci ci kilifa gi euh, qu' est ce qu' on peut attendre comme discours surtout tolluwaayu jamono. <laughs> waaw El xam nga nekk liñ naan bala ngaa sa gémmiñu sama xam ne muy wëli <laughs> euh, macha allah daal miin nañu vraiment ci ni mu ko daan defee guddi yonent bi macha allah bu mu dugal ñu ci si asira annabawiya Euh, la biographie du prophète mm. euh, dugal ni ci alxuraanu karim dugal ni ci enseignement hadis yonent bi dugal ni ci enseignement kilifa de façon Bou ama am solo daal mm-hmm. mm-hmm. vraiment l'homme mom euh, amuñu ci benn xel ñaar yàlla may na ko xam-xam bi incha allah moom ku fa ñëw loo soppoon yonent bi di nga ko gën a sopp mhm. loo xamoon yonent bi di nga ko gën a xam mhm. ba man renouveler vraiment suñu intimité mhm. ak gën di mindeef muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ci jamono yi nuy waajal euh, màggal ko moom ngën gi mbindeef ni nu ko waxee buñ ne ngën gi mbindeef moom tëj na wax ja ak ko mën a doon ci yooyu jamono la ay caricature génn ak yeneen ba waral yenn yëglu gi surtout dans le monde arabe lan mooy la la la la véritable réponse qu'il faut apporter à ces gens-là bu que euh, réponse physique wala di bërëngu ci mbedd mi ñu ko yaakaari ci ñun ñu delloo leen seen xel yu ñaw yooyu. Hmm. waaw euh, El Hadj wax nga lu am solo xam nga li ñuy tuddee islamophobie. Hmm. adduna bi daf ko war a dépasser. adduna bi dafa war a nekk lu kii daal lu tolérant. Hmm. parce que l'islam c'est une religion de tolérance. Mmh. Islam, religion euh, d'entre-aide. Mmh. Parce que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Wa illa rahmatan lil alamin. Wa ma وَمَا illa rahmatan رَحْمَةً nas. loolu suñu borom ñew na ci bataille mm-hmm. euh, yonent bi dafa symboliser la miséricorde yonent bi dafa symboliser la tolérance donc euh, yu mel noonu bu amee ñun nañu def preuve de dépassement mhm. nga xam ni ña koy def seen xelani toll mais moom mérité wul loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mérité wul caricature yi yenn autorité yi aussi ñoom it position biñ ciy jël dafa war a nekk une position bu bu sereine mais bu dee yenn kilifa ay autorité étatique ñoo koy def mel ni dañuy encourager loolu baaxul islam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al ilaaj xasan diglewul tooñ diglewul tooñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diglewul même ki nga bokkal diine ak ki nga bokkalul diine même ki nga bokkalul diine yonent bi joxe na ci ay modèle yu baax macha allah xam nga congrès tripartite ba mu woote woon yaa ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ممكن يواتي نواو ليجان دي ليبري يوي ني ميم بو ني بوكول ديني كوار نانيو مانا داجي تي دينوميناتور كومو بي ني ام مو سيني بوروم بوكو ني ديني مي نو بوك يالا جيغا خامني مو ني بيند دونك لولو سي اكستريمومون امبورطان موي ني ديف بروف دو توليرانس انفير نيغا خامني بوكو نيو نيوم ديني yooyu nag dañ ko war vertu yooyu dañ ko war di renouveler ci weer wi nga xam ni ci la ñuy màggal juddo mhm. te incha allahu ci tant yi yëpp kilifa yi ñoom dinañu revenir ci loolu un peu partout fuñ ñu koy mën di defee mhm. nit ñi daal di def preuve de tolérance xam ni l'islam c'est une religion de paix mhm. l'islam c'est une religion de sérénité moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii ñu ko teg lépp ëpp na lu ne andiri na ko mais dafa daan ànd ak sérénité rek tout le temps. Mhm. am na solo très bien euh, euh, ñu ñu waxtaanee actualité beneen ak ndaw ñi euh, d'ailleurs moo waraloon ci njëlbeen ma doon laaj jëmuk daayira bi ci gàttal presque la philosophie le discours envers les jeunes surtout jamono ñu jël ay. yoonu barsax u barsàq gi yow lan nga leen di di xelal lan mooy discours bi euh, ku tedd ki ba nga xamante ni naam ni ngeen yare euh, njaboot gi dana mën a law tisati ci ndaw yeneen yu Sénégal ndax ndaw yépp c'est la même jeunesse waaw xam nga euh, léegi-léegi nga gis ñu naan xale yi naan waaw mais dëkk bi xajatuñu fi mënatuñu fi nekk te El Hadj dëkk du xat ni ña ko dëkkee ñoom la seen jikkay xat Sénégal macha allahu dëgg la ay réew gën nañ ko naat ay réew gën nañ ko naat mais bu mu tax ndaw ñi di engagé wu n'importe comment bu ñu jàngee laamiyatul arab ma kilifa gaa nga cee wax saar baa nga cee wax la amruka ma fil ard deexun ala mriin sara raaxiban aw raahiban wa huwa yaqilu Mhm. sañ nga dem à l'aventure mais def ko de manière rationnelle mhm. boo koy def ne lii est sama bakkan man na ci des wala déet ndax mhm. wala tulqu bi aydikum ila tahlukati kenn du dóor sa loxo ci ëkk loo xam ne yow boo ko defee sa bakkan man na ci des bu boobaa boo ci deewee xaru la moo tax nañ koy def rek dans le règles de l'art am na solo euh, aventure moom suñu borom béyu ko qul siiru fil ardi la wax

très bien vraiment mais euh, Barça barça Barsax moom ak mm. façon biñ koy defee lolu mom kenn diko encourager li ci def nak moy mm. autorité yi ñu gën xol sen politique de jeunesse yi mm-hmm. ba dal vraiment xalé yi même buñ ñu fiy des itam mm-hmm. ñu wëteul leen ci luñu japp lo xamni les merveilles yi am ci Occident du leen euh, du leen du tax ñu jël gal gi du leen keuf même bu ñuy dem itam ñu organiser ko ci façon bo xamni parce que Occident ci boppam dañoo soxla main d'œuvre oui oui oui li soxla méngoog te li ñu soxla ci jeunesse. Mm-hmm. mais Afrique lañ koy amee. Mm-hmm. te Sénégal yàlla may nañu jeunesse boobu jeunesse bu am vitalité. donc nañ leen organiser l'olu, wutal leen ci loo xam ne nii mënees na ci jàpp. Mm-hmm. mais ki nga ne doo dem ba pare te wutaloo ko dara ci lu mu jàpp. moo tax lu nekk mu ciy dugg. dëgg la jërëjëf euh, sëñ Makhary Mbaye ñu ngi lay gërëm bu baax vraiment di la sant. waaw El Hadj li may daaneele rek. mooy di dénk mbokk yi. respect mesure barrière yi nga xam ni moom la ñuy wax boobu ba léegi. Uh-huh. Directeur a mobilise une équipe médicale de 200 personnes. Nous avons 50 médecins, 200 mmh. personnes de toutes spécialités confondues. ñoo xam ñooy couvrir gàmm gi bañ koy def euh, depuis quatre-vingt-dix-huit ba léegi. Mmh. ci niveau Tivaouane nitam le médecin chef ñoom itam ñu ngi ànd ak euh, waa daayira bi vraiment di leen accompagner ci loolu. Mmh. Mmh. ñoom it ñu leen ci gërëm. ba yaakaar nañ ni daal incha allahu mesure barrière buñ ko sàmmantee mooy masque yi mooy gel yi. dañ di saafonte. loo gëj gis nit am léeg-léeg nga gis gëj gis nit ca gàmm daaw ga. ba mu tax ngay ñëw di akkolaatante ak moom. am na solo voilà nuyoo yéeg yëpp. asalaamaaleykum doy mm. na ci jamono yi ñu toll bañ mm. di joxe loxo te respecté mesure barrière pour ñëw gàmm si. Mhm. du ñu indaale virus du ñu yóbbaale virus. inshallah allah jërëjëf jërëjëf. Euh, Makhari Mbaye waaw presse bi nag moom mhm. ñëpp ñu ngi leen ci wo <laughs> incha allah Serigne Cheikh mo toogoon ca champ de course. ni mhm. journaliste buy def liggéeyam ni mu waré ab messager la. ndeysaan <laughs> vraiment vecteur de transmission ngeen. dëgg la yéen ñëpp daal ñoo ngi leen ci wo inshallah inshallah mbay allah Mbaye jërëjëf sëñ Makhari Mbaye ñu koy gërëm bu daayiratul Moustarchidine wal Moustarchidaat yi ñu gërëm bu baax diko ko sant ci loolee mu may ci yité yi di delu ziar bu baax kilifa gi Serigne Moustapha Moustapha Sy ibn sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di ñaan yàlla yàggal taxawaay gi gërëm it Oustaz Mor Thiam ci yombal geeg réalisation bi ak mbooleem mbokk yëpp euh, di leen euh, ñaanal jàmm di ñaan gàmmuk jàmm Ali maa ngi lay ziar bu baax. waaw maa ngi lay fay bu baax a baax. <laughs> ñang naka waa ñu ngi sant yàlla bu baax. Matam euh, di ngeen fa gàmmu wa ah? waaw gàmm moom dina am. Ah, ah, xanaa kay événement bi nga xam ne ñaar fukki at nii daanaka mosuñu ko wuute moom la nar a wuute mu di gulet. Hmm. muy ziara annuel Thierno Mouhamadou Samassa di événement bi nga xam ni ñaar fukki at ak ñaar ci ren mhm. dafa doon tombeek euh, ñaareelu fan gannaaw bi ñu maggalee gàmmu euh, gàmmu gi mhm. ren nag euh, daanaka ñu gën a bëri xëy na dégg nañ ko sax ci mhm. suñu ay antenne ndax kilifa gi yebaloon na ci ñu ngir xamal ñu ne mbas mi moo tax ba ren daal daanaka daf koy mujj fomm ba beneen ba ba beneen waaye nag ci communiqué bi nga xam ne ki yore kàddoom moom moo ñëwoon si ñun xamal nañu ne nag guddi euh, màggal guddi juddu gën gi mbindeef moom mm-hmm. xel xalaasul di ko euh, reporté mm-hmm. kon euh, dinañ ko màggal fii ci Matam waaye nag xam nga ku ne gàmmu ci diwaanu Fuuta rawatina région de Matam foo nga wax buy naaj mm. ndax bokk na ci kër diine di kër Cerno Amadou Alfagna mm-hmm. bi nga xam ne ci ay atub soixante-dix lañ ko sosoon daanaka gannaaw Tiwaawoon bërëb bi gën a rëy ci wàllum gàmmu ci diwaanu Fuuta maanaam boo jëlee ndar ba ba nga yegg Bakel mooy buy ndax mhm. ndaxte fii euh, daanaka gàmmu gi guddi la waaye daanaka fête bi lañu gën a fonk sax tabaski uh-huh. euh, foofu itam ñoom ñoo ngi koy waajal bu baax a baax ni ma déggee sëriñ bi nag di ko wax léegi mhm. wax dëgg yàlla kilifa yi fi toogal nguur gi rawatina gouverneur préfet yi ak sous préfet yi ñoom ñëpp soobu nañu xam nga boobu ba léegi maatam moom ci xeexam mbas mi daanaka donte finalement mujj woon nañu daanu waaye bokkoon nañu ci ñu yore woon flambeau bi bu yàgg yàgg te mm-hmm. mbas mi dugg fi woon uh-huh. daanaka dispositif boobee la ñu ba léegi rek moom la ñu ci mbooleem këru diine yi nga xam ni dañuy amal lii di gàmmu gi uh-huh. moom la nga nekku ca Boyinaaj yi mm-hmm. ca Matam ca Sinthiou Bamambé ca Ciloñ mm-hmm. Kulim Dioum ak yeneen këru diine yi nga xamante ni fii mu ne ñu ngi waajal li nga xam ni moo di gàmmu gi bu baax a baax xanaa demoon na ba nekk benn rendez-vous boo xam ni xam nga groupe Futurs Médias suñu bopp ñoo ko njëkk a gis laata mu yegg fenn fii mm. tey jii nag waaye nag li ñuy wax euh, jaam ak bëgg-bëggam euh, buur bi ak pexem euh, voilà donc xam naa ni nga ko waxee rek yoon yamul ci benn voilà xanaa rapidement Ali Bandel balaa ma dem Kaolack ma jël la ci geste barrière yi comme xam naa toutes les régions du Sénégal <laughs> maa tamit gars yi moom daanaka bayeeku am na bayeeku nañu lu bari waaw bayeeku am na hmm. bayeeku am na waaye nag Assane foog ma jaar ci antenne bi nii ngir wax benn affaire boo xam ne remarqué naa ko te médecin ñoo ma koy wax hmm. dafa am benn feebar bu fi am grippe la wala socc la mais daanaka ñëpp mu ngi fi da mu ngi fi def lu dara jarul dem maa ngi dégg yaa ngi laaj benn médecin di ko naan fréquentation hôpital yi est-ce que na mais Assane Gueye bëri na fii bëri waaye boo xam ni hmm. ah xaw na ñaaw na njort daal waaye daal mesure barrière moom mm. wax dëgg yàlla démb nag waa police Matam dugg nañu ci marché bi jàpp ay nit ñu sulu woon marché waaye wax dëgg yàlla niñ ko doon ca jamono yee nga y a deux trois mois mm-hmm. melatu nii ah ñi ma gën a remarqué nag ñuy sol ah, masque mooy ñi faral di may gis ñu jóge Dakar wala fenn mm. ci biir oto yi moom remarqué naa ni gars ñu ngi sol ay masque waaye ci biir marché yeeg euh, bon mm-hmm. yenn saa yi sax boo moytu da ngay fàtte sax coronavirus am na fi <laughs> jërëjëf Bandel ñu ngi lay gërëm di ziar waa Matam yëpp merci Niang jërëjëf jërëjëf kontaan nañu jërëjëf euh, RFM yi ñu ci euh, li nga euh, médecin chef région diwaanu Saloum soxna madame Diouf ñu ngi lay maa ngi leen di ziar lu bëri El Hadj Assane di nuyu mbokku auditeurs RFM tamit. jërëjëf ñu ngi lay gërëm vraiment ci ànd bi ak ñun ci ci ci eh, weccoonte gi rek li waral ñu taamu Kaolack mooy ñu ngi waajal gàmmu gi bu Medina Baye Léona Niassène et cetera et cetera ak matuwaay yi est-ce que mënees na xam mhm. matuwaay yi ngeen jël rek pour ba tey ji euh, gën a moytu mbas mi ngir askanu Sénégal yëpp. waaw euh, comme ni comme ni nga ko waxee rek xam nga ren moom gàmmu gi dafa nekk ci contexte bu bu particulier mm. muy contexte euh, pandémie covid 19 bi ba tax na mm. euh, en plus de motuwaay yi ñu daan jël yeneen at yi dañ mm. cee boolu boole donc euh, benn dispositif boo xam ne pour prévenir donc mbas moomu prévenir propagation virus bi fii ci biir ci diwaan bi mm-hmm. ci kaw loolu li ñu li ñu def mooy dañoo élaborer benn plan bo xamantene ne ay matuwaay la yoo xam ne dañ ko jël pour communication sur le risque ak engagement communautaire nga xam ne day am ay visite à domicile euh, def euh, ay euh, caravane de sensibilisation mm-hmm. ay visite de proximité ci kër yi nga xam ne ñoom ñooy dalal gan yi mm-hmm. dinañ teg tamit benn stand boo xamante ne ci marché Medina Baye boo xamante ne tamit pour toujours rek yee askan wi la gën leen a ñaax ci respect mesure barrière yi mm-hmm. Euh, am nañu jàppale bi nga xam ne service national de l' éducation et de l' information pour la santé jàppale nañu ko andi nañu benn camion sonorisé boo xam ne dina sillonné artère Kaolack yi parce que tamit euh, Medina Baye mooy foyer bi nga xam ne moo gën a rëy mais aussi am nañu yeneen euh, lu topp lu mat ci ay fukk foyer yoo xam ne fii ci biir commune de Kaolack ak même commune de Kahone yoo xam ne ñoom it dañuy célébrer événement bi. Mmh yooyu loolu moo xam mooy li nga xamante ne def nañ ko dinañ tamit ànd ak. waa Croix Rouge ànd ak suñu relais communautaire yi mais également même communauté de comité de développement sanitaire yu département de Kaolack dañoo dugal seen loxo ci sensibilisation bi. Hmm. lu toll ci juróomi téeméer ak euh, daanaka fanweer ay euh, nit yoo xamante ne ci ñooñu ma cité la muy Croix Rouge muy relais yi ak comité de développement sanitaire yi. Hmm. dañuy jàppale ci. ci sensibilisation bi dugg ci dëkk bi di sensibiliser di distribuer ay flyers. Mhm. Euh, loolu loolu doon na ci wàllu li li may wax mooy communication de risque ak engagement communautaire. très bien dinañu tamit gën a renforcer li ñuy tuddee surveillance euh, épidémiologique bi. Mhm. ci kaw loolu euh, élément yooyu ma wax noonu muy waa croix rouge yi di relais yeeg yooyu dinañu constituer des des comités de veille. Hmm. surtout ci kër yi nga yi nga ay nit. Hmm. di di veiller ci nit ñi di di rappeler. pour ñu hmm. mais euh, également des hmm. euh, madame Diouf la particularité euh, Saloum Selebe Carrefour ensuite euh, machallah ñu bari dañuy bitim ci sous région bi jamono yu ñu cas importé fofu xamna aussi te anticiper ngeen jël ngeen yi. effectivement jël comme ni ci Mmh. foofu dañ fay def nekk dispositif euh, prise de température ak thermoflash mais également dispositifs yu grand modèle de lavage des mains mmh. euh, loolu yëpp rek pour gën a surveiller euh, ay signes yoo xam ne mën na ay d'appel mmh. mën a teel a mën a jël suñu matuwaay ci kaw loolu sax xam nga ne Kaolack depuis quelques mois am na laboratoire bu bu fi Institut Pasteur décentralisé woon pour ñu mën a def diagnostic bu Covid bi Euh, semaine bii passé institut Pasteur yokk na capacité laboratoire boobu andi na beneen machine bu gën a rëy. ci en plus de cela tamit test de diagnostic rapide yi sax dañ koy intervenir loolu euh, dañ koy introduire. Euh, loolu yëpp pour ah rek pour rek mën a gën a gaaw a. gàttandu loo xamante ne dina mën a nekk cas cas boo xam ne soit importé la wala. bu ne bu jóge fii ci biir. réew mi teel koo gàttandu jël mesures yi nga xamné ñoo ci war. lolou amna solo euh ñu jéxalé rek xeyna la situation concernant Kaolack euh, madame Aïssatou Bari Diouf lan moy kayé tolluwaay li est-ce que manes na wax ni Kaolack né sur le plan national ñu ngi ñu ngi am am péex dal waaw loolu moom mën nga ko wax euh, cas yi ñu ngi toll ci ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn cas. Mhm. Euh, mun naa ne depuis ñett ba ci ñeenti fan a ngi nii enregistré wu benn cas. Ah, macha allah fii ci biir Kaolack. Mhm. ba pare suñu centre de traitement bi fi nekk moom it depuis le 23 amul benn malaat bu fa nekk. Mhm. kon xam nga ne mën nañu wax ne actuellement vraiment am nañu feex bu baax te loolu bëgg nañ ko maintenir moo tax dinañu gën a góorgóorlu ci biir période màggal gàmmu gi mhm. euh, gën a ñaax askan wi pour ñu euh, respecter vraiment sam sàmmante ak li nga xamante ne moom lañ ñun waa kër yi digle incha allah personnel médical bi bu kaw Kaolack nuñ ko dundee weer yi yëpp ak it wàllu moyen yooyu est-ce que euh, mu ngi leen di gunge jumtukaay yi matuwaay yi waaw waaw wax dëgg laboratoire très bien madame Diouf ñu ngi lay gërëm bu baax la sant. ngi leen gërëm Assane. jërëjëf soxna la médecin chef région diwaanu Saloum gërëm bu baax ci Euh, lépp rek ngir gàttandu euh, waaye it euh, gën a daal di ami résultat ci jamono macha allah Sénégal waaye comme dañoo dëgmal ay gàmmu am solo lool it waaye it lu ñu ca mën a def rek ngir gunge gi ñeel taalibe yi ba résultat yi nu am kër docteur am ko ñuy dellu di leen félicité dara bañ ca dugg ne cat ñu gërëm Ibrahima Diame mi toogal RFM ca Kaolack jërë ngeen jëf mbokk yi ci kanam tuuti. incha allah kàddu askan wi ci wàllu émigration clandestine gi maanaam tukki mi ci anam yu dëppawul ak yoon gune ak loraange gi nga xamante ni yu nu yëg ak yu nu yëgul bakkan yi rot ci yoon weeg ci waax yi ci désert beeg yeneen nees mën a def ba gune yi euh, delloo si xel yi xam ni wax dëgg yàlla am na yoon yeneen Euh, yu dul yii di dugal rek lu may tiis ak naqar ci njaboot yi ni nu ko dundee demb dégg ngeen ci seetaan ngeen ci reportage ci télévision yi njaboot yi ca Pikine ca Ndar ñuy dellu leen jébal sunu njaal wax dëgg yàlla ay ay waajur yu yu ànd ak naqar ay soxna ay njaboot yu ànd ak tumuraankeeku tiis ak jaaxle euh, nees ko mën a moytule Sénégal lu ni mel mooy waxtaan week rajo Futur Média ca kanam tuuti lay doon ci 88 628 14 14 wala 33 849 16 40 Give me your hand if you want just to know what this is. setoo ni set set si sa yaaboo ni set set lu sa àndandoo yi ndax ëllëg dafay ñëw ni set set lu waxoo ni set jërëjëf Aliou Ba ñu ziar bu baax laay Diop euh, fan yi yaram wi daa sutante <laughs> Ablaye sama xarit moom it xam naa weer wee sori rek <laughs> du ñàkk ñu ànd ak moom incha allah ci fan yi nu dëgmal na mu gën a gaawe euh, kaddu askan wi ak immigration gi tukki mi nga xamante ni mooy Barça Barsaq ak euh, nees mën a def daal ba yëf ak tan am ci ngir njariñal ñëpp nag mooy waxtaan wi ak RFM asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi lay jaar sëñ bi. ñu ngi lay nuyuwaat di la ziare. jërëjëf waaw di la ñaanal jàmm di ko yow di ñaan sunu kàddu rek ñëpp ci jàmm amin ñu bokk lépp ci nag benn ndaw la rek euh, benn kayor kajoor bu yooyu wooyu fii ci Touba <laughs> bëggoon na participer ci débat bi rek pour ko ñaax suma mbokki ndaw ñi mhm. nga xamante ni ñooy jël gaal yi di dem fële mhm. Adama Dieng la Adama Dieng ok Ela aha Elage waaw vraiment vraiment man de maa ngi maa ngi ñaax ndaw ñi rek pour toog ci réew mi mhm. ndax kenn ku ne xam na ni tukki bi ci gaal yi wax dëgg yàlla nekk na loo xamante loolu doy waar na mhm. te tey nit ki bu fekkee di dugg ci loo xamante ne leer na ko ne mën na ci ñàkk bakkanam loolu risque la te kenn ku ne xam na ni tukki ci gaal moom kenn garantie lu ne di nga yegg dëgg la ñi ëpp ci gaal yi la ñuy des kon jàpp naa ni loolu du phénomène bu baax mhm. Mhm. Euh, li may gën a jooyantee gouvernement bi rek di defal ay proposition pour ndaw ñi mën a gën a toog ci réew mi waaw mooy naa ni secteur agricole bi muy mbay mi faaw ñu góorgóorlu ci bu baax a baax pour ndaw ñi mën a toog ci dëkk bi. Mm-hmm. te bu ma jëlee exemple Kajoor gi nga xamante ni fa laa dëkk. jàpp naa ne foofu ndox mu neex la ñu am. Mm-hmm. te état bi bu góorgóorlu woon ba euh, ñaari kilomètres yu nekk ñu am ay forage am ay ferme agricole yu doy. Mm-hmm. jàpp naa ni su boobaa yu bare bari yu nekk Ndakaar wala yu nekk Touba dañ mën a delluwaat Kajoor. dëgg la dëgg la. bu fu mel ni fii Touba nga xamante ni taux de bi kenn ku ne xam na ni Touba secteur informel bi moo fi doole ñu bare bari dañuy xëy amuñ ci nga xamante ni daanaka booy xool jeunesse bi soixante dix pour cent yëpp ay ndaw la ñu. kon état bi war na góorgóorlu xool ba xam nan lay def man nag li ma koy proposé mooy ñu waxtaan ak ci jëfee dëkk bi ñu jël ay ferme agricole inséré ko ci dëkk bi ci ñeenti côté yëpp. Hmm. ba pare gën a jàppalewaat bu baax a baax ndaw ko defee. dëgg la dina mën a gën a gàttal ndaw ñi mais kenn mënu wax ne ni état bi def daal ndax gis nañ fi mel ni DER. Hmm. gis nañ fi hmm, a a Euh, proposition bobu nga def euh, di am yaakaar kilifa yi intégrer ko amna solo xel du doy 88 628 14 14 RFM tukki mi ñeel ndaw ñi na ci anam dëppoo ak yoon ak i nees mën def ba wut ci saafara euh, mooy waxtaan wi ak RFM. waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah waa Jassane El Hadj Xaas Mbaye la Mbacke Baol. sëñ Mbaye ñu ngi lay ziar bu baax. ñoo ngi lay ziar di la ndokkee la ñaanal ci weer yi ñu nekk. amiin ñu bokk lepp di ñaanal umma islam bi nak amin amin te moom li may wax toujours rek del wax amin rek parce que wax dëgg yàlla li ñuy xëy di jot ci ñaanu jëm ci yow yàlla na yàlla taas sa barke rek. amiin yaa rabbi ñu bokk lépp. waaw di siyaare suñu Cheikh Fall mbool suñu jëloon suñu mbokk yi. jërëjëf El Hadj Assane. Mhm. xam nga euh, euh, man dama ko gëmul xam nga tax gëmu ko El Hadj Assane. Mhm. nit ki dafa war a mën a tekki fu mu dëkk. tant autant que mu ne bu ma demul Barcelone wala déw ma Espagne du baax. Mhm. loolu man loolu ay caaxaan laa ko teg. beneen bi tekki tekki ci naka ci naka il faut ak nga gis yoon pour nga tekki yan yan bunt nga gis yow. non bunt yi ma gis mooy nit ku nekk xam nga tey El Hadj Assane donte yow da ngaa gëm ne man El Hadj ma yi dafa war a mën a jël mbuus mbuus perméable. Mm-hmm. wala de. Mm-hmm. waaw wala mu jëm ca marché luuma ba. Mm-hmm. jubbi benn chambre aérée wala mu jubbi benn kunaam dem ci luuma ba dem. Mm. am ci lu mu suturoo faw yàlla jox la bien bañ a xeeb. alaaj asan nit ki heure boo xëyee di dante. Mm-hmm. boo darul kenn di nga mën a dar sa bopp. ok mais bàyyeeku moom la ab as ab ndaw wut a def. Mm-hmm. tey may man nekk naa ak samay copains ñu ngi dem Espagne ñëw indi oto. nga ne xaas may war naa ko am fekk suñu borom man binduma ci loolu faaw mm. ma moom sama bopp nit ñi dañu gën yàlla ñu parents am na yoo xam ne dañ koy dégg ci ay nit ñu mm. naa man bu ma samay doom âge bi am danaa ci baali mm. yooyu di ngor di fit di li nga war a dundee dañ ko war a ñafe sa life gën ko am nañu tekki fii ci réew mi ñoo xam ne tey boo leen joxoon résidence ak visa ak avion jet privé leen kaay leen Espagne ñu bañ barke borom Tuubaa mag xam naa yoo xam ne tey hmm. boo leen dag ba leen dee dugal leen ci avion VIP laa wax ne hmm. ko amee kon affaire bi du hmm. caagi ne ki nan bàyyi yooyu baaxul ñu leen koy wax ay politique politicien lañ parce que yooyu dugal xale yooyu du amul njëriñ liggéey pour nga def ko alaaji Assane nit départ na ci juróomi junni wala ñeent téeméer yàlla ko sarset magasin mhm. tey ji boo xoolee suñu yeneen xeet yi nga xam ne ñoo nekk ci sous réseau jóge ci réew mi fii tey suñu ñuy tàmbale kees la ñuy tàmbale def ci mante faras def ci gura def ci nangam tey ba mu yàgg jaay biti mais mhm. ñun dañuy dañuy dañuy taamu liggéey te ku amugul waroo taamu deug la jërëjëf xaas ndax taamu waaw loolu rek ci amoon daal ñu ñaax xale yi seen i état bi jàpp leen seen i parents jàpp leen salaamaaleykum wa jërëjëf 88 628 14 14 wala 33 849 16 40 asalaamaaleykum asalaamaaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu sëñ bi allo. allo. waaw sëñ bi. waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax laa jaase. yàlla yàlla na ko ziar. El Hadj Sopp da baax. El maa ngi lay ziar bu baax. <laughs> waaw di la ñaanal jàmm rawatina groupe Futurs Médias yàlla na ci yàlla dolli jàmm. amiin ñu bokk lépp. waaw ñu rafetlu liggéey bi macha allah liggéey bi rafet na. jërëjëf El Hadj jërëjëf. laa jaase ñun ñëpp ay ndaw lan. Mm-hmm. waaye ji nga jafe-jafe. ak ñàkk na awma liggéey man daa mën a awma liggéey fii Sénégal mm-hmm. même nga xëy di fari saako di jaay ñëw loo am nga bokk mooy man mooy sa wërsëg nga mën nga ko def moo gën ngay jël gaal di def mm-hmm. ndaxte nag nan ko wax ta nan nan ko wax ta dee mm-hmm. am na yoo xam ne léegi sëñ bi génn wax na ko léegi xarula la amul leneen ñi nga xam ne yàlla may na ñu am kàddu te xam diine nan wax lii loo xam ne boo ko defee sa bakkan mën na see mën na la see fekk lan lay lan lan lan la ci diine wax décidé wax xaru la amul leneen mënuma mhm, mhm. d'accord nag ñi fiy dem ñëpp parce que ay julli leen ba pare nga ne kat damaa bëgg a teral samay waajur damaa bëgg a teral sama mhm. sama njaboot ba pare ngay def loo xam ne sa bakkan man na see dugg te li ngay dem di wuti ku la wax ne da nga ko fa amee wërsëg fenn fu nekk fa nga nekk yàlla mën na la ko fa defal ndaxte nag njariñ loo fekkee dëgg la dëgg la te yàkkam sa wërsëg ñàkk di gëmadi yàlla la ñun ñi xam nañ ci dara yoroon noonu tey si tey dañuy dëbb dëbbal di liggéey suñu liggéey dëgg Mhm. terewul ñu ngi siy tedd di am suñu njaboot xeebuñu dara. Mhm. kon nag doomu aadama kenn ku nekk bu xeeb sa bopp xeeb sa bopp weesuwut soo xool nasaraan bi nga ne yaa ngi bay dem te moom mu gën laa sonn fop nga gis léeg-léeg benn tubaab bu jël fetal rey nit ku ñuul ñëpp mooy napp nit ñi ñuul ñoo leen tere liggéey foofu. Mhm. Ah, kon kay fépp la. dëgg la <laughs> kon nag nanu góor nanu góorgóorlu daal kenn ku nekk nga mm. jéem a toog sa dëkk boo mënee dem nag ci yoon bu baax. Mm-hmm. yàlla na la fa yàlla yóbbu. amiin mais nag gaal moom man conseil wu kenn mu fay dem ku nekk boo dee mm-hmm. jërëjëf yàlla yàlla yàlla yàlla dool jàmm. amiin amiin El Hadj Diouf sopp baax ñu koy gërëm bu baax di ko sant euh, bu sañoon daal ñu moytu gaal ndax gaal gi moom risque yi ci ëpp euh, vraiment tawféex ndax géej ak nu mu yaatoo hmm? waaye gune yi naam mais ñi leen di yóbbu waaw

allo. waaw sëñ bi alo waaw. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw bi waaw da nga rajo. de fay naa ko léegi waaw fay naa ko man la Ibrahima. waa kay Ibrahima bisimilah. waaw kay waaw waaw dama doon wax ci li ma dégg nga wax wax yàlla parce que affaire yi ñun soxal nañu. Mhm. waaw te wax dëgg yàlla. Mhm. am na loo xam ni doomu aadama bu koy def boo ko tegul ci yoon rek. jural ay jafe-jafe. Mhm. waaw tukki wàññiwul dara. Mm. mais teg ko ci yoon. Mm-hmm. te gis nga yàlla dogal na ni mbir mi am na yoo yu gën bari dañuy wax comme que dem na yegg na man ci su ma demee damay yegg affaire demewul noonu. Mm-hmm. waaw demewul noonu. dëgg la il xam ne aussi dafa ne dama ñàkk liggéey rek ba lu ma jot ma dugg ci dégg mm-hmm. jën jënu euh, tukulóor nee na jënu su ma bàyyiloo jënu loxo li ma jot a jàpp ba di ko liggéey ba di ci sedd ba am ci dara. wala mm. ma koy bàyyi bay dem ci leneen yàlla ma fekk Mm-hmm. mais topp nit ñi ñuy wax lu leen neex guvernement bi nangam liggéey ma nangam liggéey jigéen ñi ñànga wutal seen bopp xamul sax ndax gouvernement mi ngi fi mm-hmm. ah mm-hmm. ay nit dañuy tedd yoo xam ne ni xamul sax ndax gouvernement mi ngi fi waaw léegi nag kon affaire war waru la ko mën a teg fenn fanaan gouvernement bi xale wuti ñu leen liggéey dafa waaw jom daal liggéey ay jàmbur ay étranger jógee fële bitim réew ñëw fii suñu dëkk yi nekk mm. fii lépp looy bañ yow ñoom ñoo koy def dëgg la ah. dëgg la ñi jaay mm. ñi jaay de suite ainsi ko def bu mm. ñu jógee di yalwaan mbaa ñu mën amul dara lu ñu xam ne dafay ànd rek ku lay boo ko santoon te yolloo man dafa ma dara mm-hmm, mm-hmm. Ah. dëgg la mais nit ñi dañuy bàyyi seen sago tellement que ñu ngi nit

wala li may def bu sene mané dégg wax dégg yàlla bu doon soxla ba ma lay woo jërëjëf jërëjëf mais am yoo xam waaw ibrahima euh, malheureusement dagg na xam naa su su woote waatee rek aliou mu jël téléphone bi ñu jokkoo ñu koy gërëm bu baax di ko euh, société bi tam am ci wàll bu ñu mënee pression bi sas dafa bari <laughs> am am bi fan ko yóbbu dafa kawe xaalis ci boppam fan ko teg dafa sori ci xaalis wax dëgg yàlla du dara <laughs> et cetera et cetera ñu jiital jikko yomb te wax nag yenn sekkee nag njaween yi mais jikkooy li gën moo lay may nga am lu wees alal asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu sëñ bi. waaw maa ngi lay nuyu yaar maa ngi tudd Modou Diouf maa ngi woote Mbour. waaw kay Modou ñu ngi lay déglu. waaw Alaaji Assane. waaw. dem bi mënta ñàkk suñu ndaw ñi la. Hmm. ak li ñu fi li hmm. man mii ndaw di wax ak yow fanweeri at laa am. Hmm. deux ans ci ren bu ma waxee te yàlla rek a tax mënuma liggéey. Mm. benn cent mille bu taxaw. doy na waar te maa ngi xëy bu dee bëccëg. Mm-hmm. bañ naa ko ba fi may liggéeyee foofu laa def. dëgg la. kon fii nii lu ñu fiy téyeeti. waaw ah dëgg dafa metti dëgg la. fu mu doon nii dem rek la ñuy gis. Mm-hmm. mais dem bi wóor na wóor na. mu ne. ma ne dem bi est que wóor na tamit. est-ce que dem bu wóorul li toog bu wóorul ndax toog bi tumuranke moom. Mm. dem en distance moom moo ko gën. waaw. ok kon ñu ñaax kilifa yi ñu gën leen a taxawu rek pour ngeen essence bi ëpp fii ah. kilifa yi kilifa yi amul nguur yi fi jàll yëpp amul nguur gu amul mbëkk. Mm-hmm. waaw nguur yi fi jàll yëpp amul nguur gu amul dem jël gaal. Mm-hmm. Mm-hmm. kon ban nguur la toogal toog di tumuraanke kay dem jël risque yee ne quelque temps nga tekki moo gën man mii di wax ak yow li la ci wax moo ci am. ñetti at. Euh, ci ren presque mooy loolu noonu benn hmm. deux cent millions mënoo yombul direction bi bu dégg bëccëg. Hmm, dañuy de. dëgg la jërëjëf Modou waaw yaakaar bu gaal taxawee nii léegi ah. waaye déet waay Modou déet waa kay mais yàlla baax na jërëjëf. jërëjëf Modou Diouf Mbour nee na moom waaw wax dëgg yàlla yombul yombul ci ndaw yenn i bëgg a tekki am jom bëgg defal seen yaay naam bëgg taxawal seen foyer donc euh, voilà euh, mais niñ koy waxee rek euh, wax dëgg yàlla man jàpp ma ni la solution la daal du solution bala nga ko xam rek euh, li ngay ba ci ginnaaw ci ci tiis ci naqar ci jaaxle ci saafara bu jur jàngooro waaw kon buñ ko mënee moytu rek ce qui est constant nag nekk fii kenn mënu ko di mooy soxla yaa ngi fi waaw soxla nag euh, dénk ko suñu borom waaye jéem ca dara it surtout ñi nu njabootee 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu sëñ bi. yàlla na yàlla na gu ziar yow la. Ousseynou Kandji Birkilane. Ousseynou Kandji Birkilane ñu ngi lay déglu. waaw ñu ngi lay nuyu di nuyu waa RFI di waaw comme ni ko gars yi waxee rek euh, wax dëgg yàlla am na ci loo xam ne nag moom moom daal di ko xaru la ko waaw ndax euh, fa ngay dem xamoo la nga fay fekk lu mu doon. Mm. xamoo loo fay jëlee. oui. waaw te yenn yi yàkkam sa wërsëg la. Mm. Sénégal liggéey mi ngi ci xëy na xeex moo fi nekk ak ak taamu waaye liggéey mi ngi waaw ah. hmm. mbay ngi fi càmm ngi fi euh, napp mi ngi fi élevage mi ngi fi hmm. yar ganaar yar ganaar sax am na ñu ko def métier hmm. yar ganaar am na ko def métier te buñ ko te buñ ko buñ ko jàppee lay seen wërsëg daañu ko am dëgg la ndax xam nga soobu ci géej bu doonee boo demee da lay leer ni boo demee danga am li nga bëgg mais loolu moo wóorul wóorul moom géej ak ni mel voilà wóor géej ni mel nga risque risque dem ba yegg dem fa amoo fa dara am na ñu fa nekk ñoo xam ne amuñ dara de. am na ñu fa dara. bu ko defee nag moom bu ko defee nag risque nga jël ko ba pare dem yegg amoo dara. nga rëcc nag loolu parce am ñu fa nekk ñoo xam ne tumurank lañ ne parce que dem nañ pare amuñu lañ doon lañ doon wut amuñu ko. Mhm. mëntuñ ñoo def. dëgg la na ñu fa nekk ay dix cent treize cent am daanaka lañ bëggoon amuñu ko. munti munti yoo del si léegi yow gisatoo sa njaboot la nga wuti woon amoo amoo ko mhm. nga toog ah, ay dix ans yoo xëy da nga koy perte man na man na def jàngat daal bala nga cay sóobu dëgg la waaw dëgg yàlla daal nañ nañ delloo si xel yi te et puis état mhm. a def defoo ko ba gis loo war a faj fajoo ko mhm. dafa métti ci xol dëgg la dëgg la jërëjëf yàlla dafa métti ci xol neexul dimbali nit ñi jërëjëf Ousseynou jërëjëf jërëjëf moo tax toujours xale yi bu ñuy wax ak ñoom dañ naan leen nañ teel a jóg ràññee xam seen bopp xàmmee ñi leen di sànq ak ñi leen di jëmee fu baax bu ko defee nga teel a yeewu teel a tàggat sa bopp ci métier wala am njàng boo ca nekkee bañ a bokk ci ñi lay woo ci ay jël ay xeer di sànnantee ki alkaati yow del jiitu ca amphithéâtre ya waa di wut xam-xam professeur bi lay jàngal soxlaatul xam-xam boobu yow yaa ko soxla waaw bu nga def daanaka da nga ko war a sax yow tarbiyu pour am xam-xam boobu bu dee métier naka noonu bañ a yàkkamti bu ko defee ëllëg nga mënal sa bopp dara bañ a mere ku la deful dara mën a suturlu ba keroog nga fi bawoo loolu ci teel ba nga koy xam mais am na ñoo xam ne gune yi ñoom nañ leen dajale rek des chers à kanu bu may politique wala ma am nangam wala ma bëgg peese dara pour mën a appuyer monnaie ko parce que léegi ay mouvement lu mën a doon créer nga lankal ñooñu ñooñu nga xam ne lu nu peese lañ bëgg yow teel a yeewu ci ràññee bu dee njàng nga ne ca bu dee njàngam métier na ko noonu Euh, bu ko defee li ci des nag nga dénk suñu borom mais dafa am yoo xamante ni boo xasee ba wees ko ba doon waxambaane wëng nag taxaw fekkul woon la ak métier fekkul woon ak xam-xam ah dootul yomb nag dootul yomb yàlla ci yàlla musal tout la jeunesse sénégalaise. Aliou Ba ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di gërëm bu baax Yacine Pouy ci wàllu eh, digital gi Alaaji Njóogu Jën ci wàllu réalisation di leen ñaanal kenn kendalu jàmm.